tel ne amadou ba dina dina def point de presse dem man ci lima xam ci sama niveau amadou ba def point de presse dans la semaine dek mais amul kenn fenn fu ñu waxé né publier yaay officiellement né dem day def point de presse donc amna ño xamné effectivement dañ ko bëgg wax lo dañ koy bëgg a pousser mu wax et cetera mais ni mu ko waxee léegi pap noonu la demee c'est un homme d'état boo xam ni lépp lu muy def da koy planifier tey comme ni mu ko waxee yàgg nañoo wax PDS ak moom mooy bañ moom mooy dafa corrompu ay waxu si pendant ñaata temps ku nekk di wax teel teel teel bi mu génnee dafa wax lu leer musuma see nekk musuma see dox te xeexuma kenn au contraire li tax ma doon bañ ñu pouse élection mooy dem élection ñàkk élection loolu du gàcce yaa ngi dégg dem eh, ñàkk dem élection ay bakken faatu ay euh, salfaañ bu bari si alali askan beeg yooyu loolu mooy gàcce ma jàpp ni voilà c'est un homme d'état li nga xam ne mën naa ko si wax mooy Amadou Ba amul kenn koo xam ni wax na la ni démb si mercredi bi dafay def point de presse point de presse bi naam wax na ni dina ko def effectivement dafa xaw a jàpp ni mu waroon recevoir ak temps wam dafa xaw a xat mais wax na ni dina def point de presse si diir bu gàtt si ni su amee nag dinañ ci communiquer euh, la coalition bi wala parti bi dinañ ci coalition non ban barki démb la ma dalal waa Grand Yoff noonu lay doxee dafay dafa am euh, agenda boo xam ni dafa planifier lépp lu muy def

duñ jàpp peut-être mi ngi sur le terrain depuis avant démb on on le voit presque. non ma naa la wax benn affaire. boo bëggee mën naa la yónnee man si li ma xam. Amadou Ba gëj na am temps bu mu noppalu franchement bu ñu waxee dëgg rek ku ne xam na ne aussi euh, bokk naa si jegewu ma ko trop nak way ñoo way sorewu ma aussi gejna am temps ndax di wax ak population bi di jëflante ak nit ñi di seet nit ñi kooku daf ci am solo man si li ma mën a témoigner euh, euh, Amadou Ba mu ngi souvent toujours sur le terrain ndax mu ngi wax ak nit ñi maintenant communication yi ñuy xaar wax man si li ma wax si loolu la ñu mën a laa mën a wax mooy nit ki boo ko fale jox ko pouvoir si diggante 5 mois 6 mois. Ouais. balaa nga koy évoluer dangay ngay xaar. kooku nga fal ci six mois yi mu yëkkati ay tuuma yu rëy teg ko sa ndodd waaw tuuma yi xam nga wax ju bon dëkkul fu mu jëm fu mu jógee la cosaanoo. loolu la wala wax bu ñu fàtte ne dafa am ay mbir yoo xam ne dafa am bu fekkee ne da nga génn wax moom si gouvernement la nekkoon effectivement bi mu génnee wax ki jiite woon gouvernement ku nekkoon le président de la république tontu na. yaa ngi dégg waaw mais moom laa lay wax. wax ju bari li yow bu yow da nga da nga wax sa wax bala ka bala balaa ñu ci teg waxtu la nga waxon yépp ñu teggi ko teg fete ñi ko tegg yépp moy ay borom xam-xam ño xamni jang nañu te ñu ngi liggéey ci loolu ñi liggéey ci liggéey yu mel noonu ñom ño taxaw wedd la ba mu dëj kon kay jaratul amul Ba di gën di wax parce que limu wax yépp c'est sûr et certain amul du deug donc nin nak wax deug yalla bo li ngay tegg si diggante waxtu lépp ñu salfaañe ko wane ne li nga waxoon chiffre yu nga joxe woon yëpp amul ay ay sos la parce que nag aussi gis nga dafa am loo xam ne bu fekkee nit dina ko def nekk opposition bu nekkee si pouvoir war na koo bàyyi mooy toog naan barki démb sax ah ñaa barkaati démb sax lii amoon na gis nga kii chiffre da nga koy teg si lu leer booy accuser nit da nga koy teg si lu leer yaa ngi dégg nga génne ay këyit yu koy firndeel génne ay chiffres yu koy firndeel Amadou Ba. Ousmane Amadou Ba laa wax fii may wax ak yow bu fekkee am na rapport bu ko épinglé du fanaan sax primature amul waxal nañ ko Mimi Touré suma xarit la waxal nañ ko keneen ak keneen yaa ngi dégg ku nekk rapport épinglé na la mais rapport bu balaa ngay sosal nit ki da bàyyi yoon IGE génnee rapport bu ko épinglé wala yoon kii ko moom moo nekk si pouvoir dossier yëpp tiim na ko na jël dossier yëpp moom moo ko mu ngi si taa dossier yëpp mu ngi si taabalam lu mu xamuloon lu mu gisuloon yëpp gis na ko daj na ko na ko jël yóbbu ko si yoon yóbbu ko procureur wala fi mu xam ci yoon. léegi nag bu demee nag ba ñu ba mu am firnde ne Amadou Ba moo def wala deful mu door a wax mais toog sa saal ah, génn sa ñaari jeeg wër la. nga ñëw toog ànd ak say convois si koy yoo xam ne trente véhicules wër la ak ay motard nga ñëw toog kilim bi di la ëpp ngay wax lu la neex loolu Ousmane Sonko war na jomb loolu. non effectivement point buy def ma buy def point de presse si point de presse bi dina indi ay firnde yoo xamante ne dina wane ne ñiy wax pour yàq deram ñiy wax pour deram bu ñoomee firnde dañ ko génne. kooku amul si lii naan wax nañ ko fii te dinañ ko waxaat bu toogee benn wax dina ko wax si lu jëm si loolu mooy képp ku may tuumaal man Amadou Ba génneel kayit yu koy firndeel te nag nañu moytu en tant que premier ministre lañ la doon tuumale ba nga falul mooy ay diffamation di la si daan comprendre nga moytu ñu daan la si loolu parce que nit aussi da nga war a wax lépp looy wax dafa war a leer rawatina kilifa waaye kilifa boo xam ne booy wax je pense que wala yaakaar naa wala jàpp naa wala barki de Ndiaye il faut ngay joxe ay jours ak ay heures ak ay chiffres yu baax. kilifa noonu lay doxee merci. y a pas de souci y a pas de souci. alors ça euh, dama lay poser la même question par rapport ak euh, démb ak euh, liñ ñu gis ci ay prise de parole surtout nag Ousmane Sonko ak li mu yëkkati ci ay kàddu li mu laaj xaalis à ses militants dañ ko daan def ci opposition tey ñu ngi au pouvoir dañ koy continuer parce que ñu laal alalu askan wi euh, naka nga jàngat